Karim laa tudd nekk maire commune Fimela nekk aussi le nouveau député du département de Fatick. sama teewaay mooy ñëw euh, participer ci vote HCT bi au conseil des collectivités locales ñu tànn ci suñu collègue maire muy Ablaye Ndiaye de Diawle. plus une sœur euh, boo xamante ne aussi yàgg na ci parti bu baax muy euh, Roqi Ngom ci ndigalu président de la république te comme ñun ci ay ndigal la ñuy wéy euh, ñun dañoo am kilifa muy le président Macky Sall mu tàggat ñu ci politique won ñu yoon ñu xam ko miin ko wóolu ko gëm doxalinam moo tax ba lépp lu ñu wax rek ñu def ko. waa ñàkk ampleur bi nag yaakaar naa. tey boo xoolee ñu fi ñëw benn liste moo am nga xool taux de participation bi ñoom lii lañ doon daw ndax xam nañu ne buñ demee ci au conseil sénégalais dinañ xam ne majorité sénégalais yi Macky Sall lañ àndal. loolu mooy mbir mi li ñuy wax ni yëpp ay soob la donc opposition la ñuy wax ne dañoo boycotté boycotté wuñu dañoo munul gagné au conseil bi mënuñ ko gagné buñ ko mënoon gagné dinañ jongante ak ñun mais xam nañu ne. l'ensemble de conseillers du Sénégal ah la majorité avec le président Macky Sall donc looloo tax ñoom euh, ñu wax ne dañuy boy boycotter loolu waxin la rek mais ñun xam nañu sénégalais yi xam nañu buñ ñemoo ñu ñëw ñu ñu langaat ci lii voilà. taxawaayu euh, askan bi taxawaayu département Fatick parce que député département bi laa nekk donc dossier département bi la el di yóbbu donte boo nekkee député député Sénégal yëpp nga. waaye gox bu ne dafa am ñu leen toogal ci pencum ndawu réew donc man pencum département Fatick laa war a toogal waxal ko kaasal ko euh, jël doléances yi nga xam ne ñoom ñoo nekk département bi commune par commune toog ak sama kilifa muy le président Macky Sall wax ko xalaat bi nga xam ne moom la waa Fatick am ba jox ko une majorité 73 pour loolu du caaxaan te président Macky Sall xam na loolu donc. Euh, waxtaan ak moom penco ak moom moom mi nga xam ne comme li olof di wax balaa ngay lax jàng laax yaakaar naa ku xamoon Fatick bu njëkk xam Fatick léegi gis ñaata la président Macky defal ay promotion gis lim fi def gis lim def Sénégal man soo jëlee sama communauté yi Fatick fi nga xam ne falaa laa nekk vendredi si jotee touristes yi comme Tulle ak Malé te foofu dafa dewoon mu ñëw. avec une vieille revendication Joal Samba Dia Djifer ak Fimela ak ak Samba Dia Palmarin boo doon man on bu njëkk boo jógoon Fimela di dem di dem euh, Dakar boo jaaree Joal dangay jël ñaari mbubb boo wàccee garage Joal dangay ngay dugg ci benn kër sangu ba set changé waat pour mun a dem Ndakaaru léegi loolu yëpp Macky Sall moo ko dindi sam gobo Ndios moon ba ba Ndangaan gis nga ni mu meloon nga xool également aussi avec le PUDC ñaata village lañ électrifié donc il nous reste quelques villages yoo xam ne électrifié wuñ ko nga xam ne kon président Macky Sall tànk bu mu jël à l'horizon deux mille vingt vingt trois deux mille vingt quatre incha allah ba deux mille vingt cinq bëggatul gis sax dëkk bu amul courant ci Sénégal nga gis réew mi ni mu soppeekoo xuy xamaj bari woon na fi tey Ablaye Wade lañ xam xuy xamaj ci Macky Sall loolu dafa deñ nga augmenter ay centrale augmenter puissance euh, électrique bu Sénégal yokk jumtuwaayi loolu yëpp changement yoo xamante ne nii xam nañ ko nga dem ci euh, denrée alimentaire yi yaa ngi dégg nga xool Macky Sall avant mu jël réew mi prix yi fu mu taloon mun naa jox exemple ci carburant bi litre litre essence jamono yooyu litre carburant essence bu njëkk mu ngi woon ci 1000 francs xoolal malgré yokkute bi ñëw fii ba léegi eggagul foofu nga xool gasoil litre bi fa mu taloon ak fa ni ba tey ak nga xam nga gis prix yu bëri ni mu ko mënti man li may ñaan président mooy les contrôleurs économique parce que prix yi ñuy wax ñëpp ñun dañu dañuy yokk xeex boobu il faut ñu xeex ko ñu ñun les députés à l'assemblée parce que Macky Sall yokkul prix ak ah, ñu bëri ñu ngi naan yokkute gi te yokkute bi commerçant yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñoo koy def loolu nag il faut ñu muy renforcer contrôle économique yi jël ñu jël le prix yi nga xamante ne moom lañ homologué jox ko les jox ko jox ko les élus ñu yor ko képp koo xamante ne ci boutique boutique nga wala commerçant nga jaay loo xam ne naka su dul noonu ñu ñu teg la ci sa place boole ko les les autorités euh, administratives je pense que loolu suñ ko defee la flambée des prix la dootul am. lu yàggul dara Touba dégg nga lu ñu wax saaku soble cinquante mille loolu fan la am loolu yabaata la donc euh, vraiment aussi nañ dimbale président Macky Sall ndax am na yërmande am na yenn ci population bi. non xam nga loolu waxu bu ku daanu si la on peut pas de la république loi ba bu mun a bu mun a jaar assemblée nationale bu nekkee loi bu bu baax bu nekkee loi bu méngoog li président Macky Sall bëgg nga ndax moom moo fi ne ah bu baaxul président du ko nangu président Macky Sall c'est un démocrate c'est un républicain moo tax mu tudde partem alliance pour la république ba tëbbul rek ñëw jël réew mi bi muy jël réew mi dafa jël une feuille de route ne Sénégal fii laa koy jëlee yóbbu ko fii yaa ngi dégg ah def un programme bien déterminé def un programme bien déterminé horizon deux mille horizon deux mille trente cinq kon Macky Sall xam na li muy def du dëgg kon kooku kenn du ko jangal loi te loi on ne peut le euh, faire passer à l'Assemblée sans pour autant président examiner ko te président la Macky Sall nag ku ko xam wax dëgg yàlla xam ne ku diñ la ku gëm boppam la du tricher lépp lu muy def xam ne fu mu koy teg kon loi bu mu mën a tënk ba voté ko rek xam na fu mu koy indi. donc bu ñu naan ñi dem assemblée ay député président Macky Sall dañu wax lu leen neex ndax nit ki lay yilif nga xam ko xam la mun xam na lii mooy indi yokkute la ci réew mi kenn du ko freiné.